ambiance lañ daal di nemmeeku tey ci grand théâtre merci mu doon bis bu mag militant membre parti bi daal di nañ daje waxtaan ngir ana naka la ñuy def ba jàppale kii di seen candidat muy Amadou Ba moom mi le ñëwoon daal di jël kàddu gi di xamal militant yi ne pare na ngir liggéey ak ñoom. merci ak ni ngay taxawoo Macky Sall xam naa la du tey Macky Sall nag nit ku baax la ku tabe bëgg Sénégal yow xam naa ni dinañ liggéey incha allah. Aïssata m'avait toujours montré qu'elle pensait. congrès constitutif wante tamit mu nekkoon congrès d'investiture parti bii di Oser l'avenir ñoom li ñu xamle ni duñu des benn yoon gannaaw ngir jàppale seen candidat bi lee li tax moom la Amadou Ba ko liggéey moo ko liggéey ci yaram moo ko liggéey ci xam-xamam moo ko liggéey ci matadiyam moo ko liggéey ci nag kilifa bu dal te ñun nag senegaal dañoo soxla kilifa bu dal. courage probité ak éthique lii mooy valeur yi nga xamante ne ni moom la parti bi di doxee tax na ba kii di ay Tall Sall di xamle ni jot na ñu gën a organiser waat parti bi. kon bokk li may wax fii na leer ci bopp ñëpp boo leen delloo seen dëkk yi ak seen gox yi xam naa ni yéen a ngi fay liggéey ànd leen ak majorité bi ànd leen ak coalition bi ànd leen ak responsable yi fa nekk yéen ñëpp ngeen taxaw ànd ak pas-pas ndax man ay sëbitaal ànduma ak yaa fuus de